mbokk internet yu chrono actu nuyu nañ leen ku nekk sa tour à sa sant ñu dikkaat teg yéen ci seen euh, émission rendre d'actualité bi paa nag euh, spécial coupe du monde bi la ñuy waxtaanee ma ci ànd ak sama naataango yi mu Sène seen naa la. Euh, fay naa la Rama. sëñu la. Ah, technique bi ñu ci ànd ak sëñ Fallou comme ni ñu ko waxee spécial coupe du monde la ñuy wax gis nañ ne premier tour yi. ñu ngi mu ngi daw ba léegi mais xam nañ yenn affiche yi balaa ñu cee wax lenn dañuy ñëw si qualification au Sénégal balaa ñu cee wax qualification bi dañuy wax si trois poules de trois matchs yi ñu defal mm-hmm. en tant que yow mi nga xam ne que ne yaa gën a spécialisé sport bi noo ko gisee première match bi défaite deuxième ñu dóor Qatar ak euh, troisième bi ñu dóor équate qualifié mm-hmm. noo gisee parcours Lions yi si coupe du monde bi. Euh, merci beaucoup Rama euh, d'abord di nuyu internet yi nga xamante ni ñëpp ñu ngi ñuy seetaan à travers plateforme Chronoactu yi spécialiste Sénégal moom yaakaar naa ne ñëpp ay spécialiste yi ci football quoi mais maanaam nañu jéem wax rek. ñu ñu estimer. Sénégal démarré na compétition bi d'une belle manière c'est-à-dire que ñu joué nañ match boo xamante ne c'est assez abouti contre euh, Hollande Pays-Bas. Mm-hmm. défaite bi nag ñu ñëwee dëkk bi ñu bëri. ñëw nañ ci ay ay failles ñëw nañ ci di wax ci yu bëri yoo xamante ne nii mënoon nañ ko apporter si équipe bi te plus tard on verra que ni bon failles yi nit ñi doon wax waxuñu ko nii rek pour parler quoi. apport am na lu mu apporter équipe bi. mais mm-hmm. juste rek pour benn aperçu bu ndaw comment commencé wax maanaam Sénégal joué na match bu bu bu bu jaar yoon contre euh, les Pays-Bas. Mm-hmm. peut-être nag il nous a manqué d'efficacité. bu mm-hmm. wax efficacité wax xam dañ ne dañ le but li nga xamante ne nii daal mooy quintessence football. Mm. ndax mën nga football football bu rafet mën nga def lépp même si man je ñi nga xamante dama bokk si ñi nga xamante ne. Mm-hmm. football moom spectacle la. il faut faire le jeu man football spectacle laa ko jàppee jàpp nañu ñëw teg ñaari bus ñëw taxaw sa say camp dugal benn bii gagné naa match bi je suis content man jàppuma lool man football pour man spectacle donc daal pour wax ne rek Sénégal joué na match bu aboutir contre euh, les Pays-Bas li ñuy regretter rek mooy défaite bi ñu ci am défaite bi maintenant amatuñu lu ñu ciy regretté parce que li ñu doon cherché am nañ ko muy qualification. waaw pour le bi metti woon na parce que mënoo jouer match ba presque match bi di dem à la dernière minute si mm-hmm. dernière minute ñu lay dugal di la encaissé loolu la nit ñi lool moo taxoon nit ñi di wax parce que mm-hmm. dernière minute bi ñu encaissé but mm-hmm. te loolu doon naa si waxtaan am ko ma doon si waxtaan la na ko africain pourquoi mënuñoo tenir ay score parce que soo seetloo ñu lool dinañ si déglu sax dinañ si dellu si waat incha allah rabi mais dinañ bàyyi Moussa Moussa Lo moom mu wax ci xalaatam Moussa noo gisee parcours Lions Hollande bi ba si euh, si ñoom qualification contre Équateur. waaw bon coupe du monde bi moom ñu yàlla bu baax dangay si borom dogal nañu génn ci phase de poule yi dem na loo xamante ni ñoo ko doon xaar depuis euh, maintenant bientôt vingt ans mm-hmm. parce que mondial boobu juin juillet mai juin la woon quoi. 31 mm-hmm. septembre la woon début de. Mm-hmm. donc mois juin la woon quoi. kon ñu ngi ñu ngi presque à vingt euh, donc man na vingt ans sax quoi je veux dire. Mmh. c'est à vingt ans quelques mois. donc vingt ans ngi nii booba léegi demuñu huitième de finale. Mmh. dëgg yàlla génération bi nag ñu ngi am ci ñoom yaakaar baax a baax baax. Mmh. te it man moom ni ma ko waxee rek coupe du monde bi onze contre onze la. xam nga bi ñu football ak Hollande. match bu abouti lañ def. waaw gars yi football nañ ils se sont donnés à vraiment. 100 pour cent à 100 à 100 pour cent. liñ mën lépp def nañ ko. Mhm. dama si boo saanee xam ne score bu reflété euh, continue match bi quoi. loolu moo métti woon Sénégal mais xam ne si deux fautes. Mhm. demee Edouard Mendy sorti boobu mu def. Mhm. ak li mu remettre deuxième bi bi ci axe dans l' axe en plein axe. ci kanam attaquant bi. donc kooku dugal rek lay mën def quoi. waaw loolu tamit day ça arrive. ça arrive mais donc euh, les populations aiment trop le sport en football. C'est pourquoi d'aucuns a voulu, ont voulu vraiment jeter le, le avec l'eau du bain. Mm-hmm. L'eau du bain, mais loolu dafa yaa dafa dafa gaawoon bopp daal. Mm-hmm. il fallait faire très attention. man mm-hmm. à aucun moment remettre ma en doute suñu possibilité de qualification. waaw loolu moom ñi may wax waxtaan yi xam nañ loolu man à aucun moment. maanaam ma ne Sénégal war na mën a toog premier tour quoi. Mhm. parce que gars yi Qatar lañ doon Équateur surtout lañ doon gën a redouté pas Qatar mais Équateur quoi la gars yi doon redouté. Mhm. bu ñu mu jaar ci qualification ak li mu daj ak maanaam Argentine ak mhm. baax yi mu a ak position trois euh, euh, troisième position bi mu jël ci euh, mais tout ça lu baax la mais ñun équipe valeur bi ñu yor dëgg-dëgg xamaguñ ko quoi. man wala ñu bari ko xamaguñ ko. waaw man jàpp naa ne même si suñu kanam incha allah li kanam loo ci bët. affaire bi euh, dina mën a gën a kii quoi. waaw mais nag man comme euh, di dafa di moom ni noonu comme ça ne spectacle nangam nangam lépp c'est bien ko lu baax la. Mhm. mais man résultat bi surtout moom moo ëpp solo man. Mhm. parce que man je crois que même bu ñu doon fubale nii dégg nga gën a baax ci monde bi fubale. Mhm. xam nga te ah, au comme li ñuy wax gisuma financé wax rek euh, football moom fin de match jeex waaye duñ la wax na moo mooy. jugee parce que bu fàttali ko Grèce. en 2004. waaw. équipe bi ñu indi jël coupe d'Europe. final ak Portugal gagné ko xam nga. boobu grec grec yi ba léegi seen nañu footballé bis boobu la teg seen i camp a privilégié ci attaque. mais même ko dugale. xam nga fexe na ba jël coupe d'Europe. waaw xam nga loolu tamit yaakaar naa wàññi dara quoi tey yow palmarès rek soxla ndax Sénégal tamit. non dëgg la sax parce que. soo xoolee mais mais bu rafet après nga ñëwoo. loolu ndax. football efficacité moo moo moo gën a primé si football wala football tey jii man gëm naa ne football boo xamante ne aboutir na maanaam match Sénégal la moo tax ñu naan foofu match bu aboutir na parce que Sénégal dañ début match bi ba ba à la à la soixante quinzième je peux lépp dañuy teg pressing bu am solo pressing d'équipe boo xamante ne ligne par ligne la léppay àndandoo teg teg teg teg benn pression boo xamante ne zone onanda yi man loolu laay wax football bu bi génn football wane. tout benn engagement boo xamante ne ñu jour yëpp dañ koy mais comme ji tamit. match mais match xam nga match xam nga match 75 du minutes mais match 90 minutes la comme ni ñu koy waxee tamit dinañ wax ci fin de temps bi nga xam ne que ni mhm. euh, dañuy gis ne léegi. bon loolu moo nekkoon suñu fort mooy la défense sénégalaise loolu lañ daan wax mais gis nañ ne si mondial bi on a encaissé trois ñaata quatre bu lañ encaissé. Mhm. parce que suñu xoolee suñu évolution ñun. Mhm. dañuy seetlu ne léegi presque chaque marché dinañ jël bu mhm. te ce n' était pas le cas. parce que suñu xoolee CAN bi deux buts rek lañ jël. on avait la meilleure défense contre euh, ak euh, Égypte bu ñu jëlee. mais bi ñu ñëwee si match éliminatoire bi contre Bénin on a prion un contre Égypte aller on a pris un Euh, ñu ñëwaat suñu match pré préparatif yi. Mhm. contre Iran jël bi. Mhm. donc ñu ñëw si coupe du monde bi tamit chaque match jël nañ bi bañ nañ ko sax ba Qatar bii bu mu am si coupe du monde bi ñu si ñun la ko dugalee. xam nga bii bii ñuy jël. Mhm. des doo ko yóbbu directement si efficacité défensive. c'est-à-dire da ngay yóbbu bii si gestion des émotions dafa am moment boo xamante ne si mat tey jii équipe bi nga xamante ne mu ngi football comme comme ni nga ko xam ni ma la ko waxee sànq rek Sénégal ñëpp ay supporters lañ ñëpp ay spécialistes lañ. Mhm. donc ça veut dire ni pression bi ñuy teg seen i joueurs joueurs yi bu ñuy football ñoom pression bi ñuy endossé xam ne ñoom pression bii nii au pays ils sont tellement scrutés au moins moyen de détail boo xamante ne wàcc na ci ñoom rek. Mhm. mën na la si topp ay mois di ci wax. donc foofu noonu gestion des émotions daf daf moo fay am. Mhm. tey jii comme équipe ko dal ci premier match Argentine au Argentine maanaam pression bi ñuy recevoir ci ci football. ci seen population man gëwuma ne équipe ci àdduna mu koy recevoir. Mhm. moo tax ñoom toujours dañuy am benn genre anxiété bu ñuy football wala bu ñu toog tolloo si yenn moment crucial temps dañuy am ay anxiété yoo xamante ne nii te te football boo si bu koy joué di xalaat c'est-à-dire football c'est c'est c'est de l'intelligence en mouvement. Mhm. football am na loo xamante ne nii boo koy boo ko koy xalaatee maanaam du ma def geste bi damay génn war naa génn gii nii. automatiquement balaa ngay réagir c'est trop tard te loolu yëpp pression bi ngay football wa bi ngay joué waale da la koy teg donc man gëm naa ne bii ñu encaissé boo xoolee contre Hollande mhm. fin temps fin fin match bi jeex na presque nga war a toll fi nga xamante ne da war a gestionner match bi pour au moins boo gañewul match bi foofu match boobu moom ah, résultat normal c'est victoire bu match parce que ñun ñoo dominer match bi te loolu ñëpp pour que mhm. des émotions yi waroon na la permettre mhm. te loolu nag coach am un moment donné. xam nga mooy am benn genre esprit dépasse mooy dépassé loolu moom mooy dépassé émotion boobu ak événement boobu looloo tax nag ñuy soxla coach ci ay moment clé yoo xamante ne dafa nekk ci match bi. Mm-hmm. loolu laa ko jàppee waaw ñëw comme ni qualifié nañ huitième de finale suñu prochain match mooy contre Angleterre dimanche la incha allah rabi mais gis nañ euh, observateur yi bien vrai que loolu moo am parce que l'Angleterre c'est lui le favori. xaw gis nañ seen coach bi loolu la wax nee na nous sommes favoris on doit l'assumer. gis nañ yenn chaîne yi <laughs> chaîne étranger yi éliminé nañ ñu presque sax éliminé nañ ñu parce que soo gisee. nuñ ko doxalee éliminé nañ ñu leen ah, léegi lan moo la ci seen xalaat ak euh, match contre euh, kii Angleterre bi lan ngeen yaakaar nañ ban kii lañ ci war a mën a demee pour mën yàlla mën nañ fee suturaal ñu génn ci victoire sëñ Moussa yow nga wax ci waaw xam nga man en tant que sénégalais fier leen man euh, déclaration wu l'équipe boobu noonu ñu sous-entendre ne. Euh, jarul sax ñu leen jarul sax di tudd di leen may bës sax si wax jooju. voilà mi ngi mi ngi war a jàkkaarloo équipe du Sénégal mu ngi équipe autant pour moi. Angleterre équipe d' Angleterre la la la la Tour Lions d' Angleterre. man loolu yaakaar naa jurul métti lu ku Sénégal ku ne da nga ci war a kontaan xam nga lu tax. Mm-hmm. c' est de bonne guerre daal pour man parce que loolu. day wane ne France moom ñaanu euh, ñaanul yàlla dajeeg ñun waaw parce que. lecture la nature a horreur du vide. France yàgg nañ daje ci ay jogante. Mm-hmm. bien depuis les dates maanaam ba ñu dóor France. Mm-hmm. ak ñoom Malick Souris. Mm-hmm. ba tey nii France yàgg nañ daje France moom ñu dóor. bu le résultat machine la. Sénégal am ci France. ci olympique yi ci olympique yi mu jëlee xam nga. kon jàpp naa daal jur ay kii ak yooyu xaw ma juddee bi xaw ma mooy UV xaw ma daal mais ñu en tout cas dañu machine daal bu ñu jëlee. kon France moom. pays ancien moo ñu ancien c'est l'ancien colonisateur saa ñu dajee affaire yu bari bari dañuy dañ ñëwaat en mm-hmm. xam nga le poids colonial. Mm-hmm. le passé colonial et puis euh, la la culture de la gagne bi nga xam te moom lañ inculqué suñu lions yi. Mm-hmm. loolu Aliou Cissé aussi euh, vraiment mu def ci liggéey bu am solo bu ci ay boo xam ne kenn mënu ko laam-laamee. vraiment ils ont eu les nerfs d'acier quoi. pour tenir l'équateur ci fin match bi nii nii jàll. Mhm. ak aussi réaction bu gaaw bi ñu def ba dugal à la soixante dixième. Mhm. soixante huitième soixante dixième. Mhm. loolu daal vraiment aussi lu jar rafetlu la. te gëm naa ne man. France parce que waaye xamoo Raymond Domenech a voulu corriger sur le plateau bi nga gars yi dañu lànk. Ah. dañu enfoncer le clou. maintenir nag waa ci ko wax ci émission bi dafa maintenir li wax. Mhm. ne moom bon respecté sa ko Dominique bi mais moom wax na ne carrément. Mhm. équipe d'Angleterre équipe de France moom jort na ne ñoo war a mën a daje quoi. léegi loolu nag source de motivation la doon ci yooyu doon sax. parce que yu mhm. bi ko euh, fi ñu euh, daal. Lions yi di gis tout le temps xam nga. après loolu nag loolu da travail mental la quoi. Mhm. am nañ coach ay coach mental benn wala ay coach mental xam nga ñu leen di defal préparation mentale et tout. Mhm. mais ñoom am nañ lu ñu bëgg. boo xoolee ni ñu footballé nga xam am na lu am na lu ñu bëgg quoi bëgg nañ bind seen propre histoire et tout. Mhm. parce que boo xoolee match yi ñaari match yi ñu livré bi jàll. Qatar ñoom ñett ñëpp duñ ko dóor. ñu bokkal poule. zéro point pointé pour la première fois pour pour pays organisation. Ah, mais boo xoolee loolu tamit. teewul li ñoom li ñu fu ma léegi ñun fu ba lañ ko sax kenn ñaari match yi ah. match bu amoon enjeu la aussi mm-hmm. gars yi dañu fàtte loolu quoi mm-hmm. public bi ñëw et tout mais yàlla dimbali ñu def ci am ndam lu mucc ayib amaat ko aussi ci beneen match bi ñu def ba Équateur mm-hmm. Équateur yi duel physique bi ñu bëggoon imposé ba dañ transfert ba dañ bëgg a def ay ay ay ballon ko ci kaw di ko joué noonu gis nga même seen biir bi sax ci bal arrêté la jógee seen fort la mais ils ont ils ont une occupation léeg-léeg yoo xam une occupation rationnelle du terrain casser ligne yu bëree bëri aussi euh, vraiment limiter les dégâts ba yàlla dimbale te boo xam ne ñooy ñetti match yi international yi ñu mujj solo yëpp match ku bëri la. Mhm. muy bi contre euh, dégg nga maam mhm. ak Équateur. Mhm. ak Qatar. benn match bu ñu ci perdre woon rek c' était fatal. xam nga. ça nous ça nous serait ça nous aurait été fatal quoi. donc ñoom léegi tàmb nañ match ku bëri yu mel noonu. wala anglais bu ngi Angleterre ak toujours na si occidentaux yi français ku mën a wax ku ne. booy wax xeet Afrique moo tax ngay wax. Ah, ah, ah. ak aussi sous-estimé. Euh, bay koo xeeb mu yab la. dëgg la buñ fàtte loolu xeeb xar mu lakk sa eh, euh, mais je vois que loolu moom. est ce que newul comme li mu wax rek mais affaire fa source de motivation la. je pense que lépp mhm. affaire bi daal. Mhm. nañ ko def source de motivation. Mhm. course bi jël ko appuyer discours bi mu war a def jour yi avant match yëpp mu appuyer ci loolu. comme ni mu ko waxee rek si le fond sax mu tiire ko. tegal leen ko ñu koy gis à chaque fois mu pour wane ni ñii. ils l'ont ils les ont déjà éliminés alors que joué guñu sax seen match. Mhm. te nag on a des lions. de vaillants franchement on a des lions. ah waaw très bon footballeur déjà. yàlla baax na c'est toutes les lignes nag. waaye c'est toutes les lignes de de de de tout dans tous les compartiments déjà c'est toutes les lignes attaque défense yëpp. vraiment te bii même défense bi nga def noonu bii ñu encaissé tout. Mhm. man je crois que on a la meilleure défense d'Afrique xam nga lu tax. non yooyu mënul ñàkk. Mhm. parce que match moo demee noonu quoi football léegi moo demee noonu xam ne surtout coupe du monde. Mhm. compétition internationale coupe d'Afrique yooyu. Mhm. ala kulli xaal équipe bi nga dajale valeur bi ñu am dinañ ko doon dugal. non man mais différence saa si jour ak yooyu différence bi nga am ba mën a jàll rek. Mhm. loolu la quoi mais bii yu ñu jël xam clean sheet yi on aurait vraiment on aurait signé les deux mais. bu soobee Sénégal deux heures par cinq zéro trois zéro match yëpp di jàllee tout. Mhm. mais xam nga football moo dem noonu quoi. mais boo xoolee match bi Edouard Mendy di génne contre Qatar. ah il nous a sauvé de élimination. deux deux deux sorties kay. voilà moo tax man quand je dis que Edouard Mendy c'est le meilleur gardien du monde. Mhm. ba def ci édito li ma wax man xam naa ko. Ah. ah kii na waa kon ñu ñaan yàlla dimanche yàlla may ñu ndam incha allah rabi ginnaaw suñu jógee ci Lions yi ñu gis euh, tamit euh, participation te ñu koy xaw a gàttal tuuti si intervention yi pour ñu mën a jàll si yeneen ñu ñëw xool participation pays africain yi on voit mieux que cette édition mm-hmm. bii nii ne africain yi am nañ benn percée que kii d'infériorité bi ñu doon xool au niveau des équipes je vois que am nañ benn waa complexe d'infériorité bi gis naa ne les africains yi tamit euh, euh, foofu am nañ fa percé mm-hmm. ndax gis nañ ne Sénégal qualifié na mm-hmm. ñu ngi njortu Maroc Maroc dem mm-hmm. ah ñu ngi njortu tamit Ghana dem malheureusement Tunisie dañ ko éliminé euh, njort nañ tamit Cameroun dem mais dañoo gis ne deuxième journée bi. Mhm. Afrique a trois victoires je pense bien. Mhm. benn trois trois la benn défaite ak mhm. benn match nul. mais loolu gëj na parce que édition bi passé 2018. benn pays africain qualifié wu premier tour. si gis nañu Sénégal bi qualifié na. léegi noo leen gisee ban ay ngeen gis participation Afrique euh, si coupe du monde bii nii par rapport ak bi passé. sëñ Moussa. waaw ñu koy gàttal rek. léegi moom man du ma wax sa complexe d'infériorité quoi man je crois que loolu c'est trop dire quoi. Ah. en fait. niveau niveau niveau équipe africaine la gars yi doon mettre en doute xam nga mm-hmm. mais aujourd'hui on voit le donc ils sont en de prouver le contraire mm-hmm. ils sont en train de prouver le contraire quoi ah. léegi le fait que la Maroc rek 98 la la gëj a am victoire coupe du monde mm-hmm. xam nga donc victoire am contre euh, la Belgique moo doonaat victoire première victoire après 98 xam nga loolu yàgg na xam nga Corée du euh, mhm. mhm. daal mhm. uh-huh. ah, yàlla def rek. incha allah adversaire bu daal équipe africaine yi liñ ci mën wax daal mooy. yaa ngi ñoom toujours. à chaque édition rek dinañ gis leneen maanaam dëkk yi européens yi ak yeneen dëkk yi dinañ gis leneen dinañ gis beneen dynamique te loolu c'est très normal parce que football nag parce que euh, il faut se rappeler une chose. Mm-hmm. Afrique tout commence par ici. tout reviendra ici. <laughs> Afrique nag c'est très simple tout commence par ici et tout reviendra ici tey jii boo xoolee ci club yi nga xamante ne ñooy performer mm-hmm. au niveau mondial club yi di performer yëpp à chaque ligne. boo xoolee tu trouveras africain boo xamante ne même s'il n'est pas il ne joue pas pour son pays mais il est ah. mm. bu mel ku mel nee nañ deuxième pays africain qualifié loolu la ñuy wax ne sixième pays africain qualifié bu gagné que nga gis benn Burkinabé bu gagné France di nga gis benn Congolais bu gagné di nga gis au au pire benn sénégalais bu gañe. Camerounais benn Camerounais Mauritanie sax am na léegi France Mauritanie pour parler du cas de Dembélé. Dembélé pour dire que ne daal Afrique ñu ngi percer petit à petit. Mhm. tey jii équipe bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi doon ko xaar pour mu performer muy équipe nationale du Sénégal yàlla def na ci sutura performer nañ donc der du yàqu foofu noonu parce que mënoo ñëw. te ki nga xamante ne mooy sa champion ñëw di génn premier tour si poule boo xamante ne. il faut parler de la poule aussi parce que Qatar moo fa ne Équateur ak Hollande on peut pas dire que ni Qatar Équateur Hollande ñoo ëpp doole Sénégal ah. donc foofu ñu qualifié que c'est normal donc pour dire que ni la équipe africaine yi ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ne. ñoo ci des Maroc tey lay joué Maroc tey lay joué tey yàlla permettre ñu génn seen i poule bu ko defee daal. ñu mën a gën a ñu valoriser suñu chance tamit le football africain daal incha Euh, léegi nag ñu ñëwaat ci dernier point bi mooy Qatar pays organisateur gis nañ ne premier premier pays à être éliminé la et c' est la première première fois la dans l'histoire que pays organisateur <laughs> ñu éliminé ko premier tour complètement <laughs> waaw léegi nag ak yeneen yi nga xam ne ni ñu ngi leen di wax comme favori gisee léegi coupe du monde bi parce que y a trop de surprise ci première journée ak deuxième journée bi ak pays yi ñu doon wax favori gis ngeen ne ñoom ils sont répondé à la hauteur wala waaw man de j'aimerais pas kenn di xeeb kenn. Mm-hmm. xam nga France sax. ah ils sont allés trop ki lañ war a am rek Pologne rek. ñu mm-hmm. jàppale ne qualifié nañ rek ça pose problème. Ah. en fait euh, ils ont la mémoire courte quoi. Mm-hmm. ndax 2002 noonu yaa ko Youssou y' a pas de football xam nga loolu wax nañ ko fi. à l'arrivée à xam nga à la fin de la journée li xewoon. gis nañ ko kon gis naa fàttalikoo seen démb. war nañu mën a téye daal Pologne qualification mettre la qualifié mais il faut faire très attention. Hmm. Portugal 2016 bi leen dóor final seen biir dëkk. 2016 hmm. euro 2016. 3 hmm. points la génne xam nga. waaw te ñëpp la ñu en forme France war a ñëw jaar ci koom jàll. léegi Qatar. Qatar nag ni mu tout bon ils ont les infrastructures ils ont les moyens tout mais ku ne xam ne Qatar vraiment dans ce tour wax dëgg yàlla ça aurait été vraiment miraculeux génn sax waaw ñu jël troisième waxuma ñu génn de mais pour man ñu jël troisième quoi. Ah. waaw vraiment. le niveau de départ la mais yàlla ku ne xam ne groupe bi c'est tellement relevé pour man c'est le groupe de la mort quoi. Ah. groupe Équateur nekk. xam nga encaissé benn bi ci huit match. ah Sénégal nekk ci championnat dafa Hollande nekk ci vraiment. nekkoon ci dynamique. vraiment daal euh, ça pas ça pas avantagé tout ça ah. vraiment kii mais xam naa ñu ngi sant rek ci bi. pays yi ñu doon wax ne nga xam ne na score France noonu mm-hmm. ak yeneen équipe yu xaw a mag yi. Mm-hmm. Brésil nekk Brésil et tout euh, a xew. lu kii mooy Allemagne mën na du ah. match du ah. ku raxas Allemagne ko dóor. mais beneen match bi bi mu dépendre rek moo ma xaw a jaaxal. Hmm, waaw ah, d' accord sëñ bi ça seen organisation bi tout est parfait. même si que ni avant coupe du monde bi y' a y' a des nit ñoo xamante ne ñoom ils étaient un peu en réserve par rapport ak xam nga le capital humain seen ni ñu tabaxee seen stade yeeg xam nga exploitation yi si am peut être wala des exploitations yu nit ñi di expliqué am na seen amu si daal tout ça c' est à c' est mm-hmm. mais daal. Euh, ouverture coupe du bi ba léegi tout est parfait. Mm. gisuñu si loo xamante ne ni tey jii. te te loolu nag c'est ah, normal ah, parce que ah. Qatar ñoom ils ont à cœur de vendre destination à travers le sport plus particulièrement football. donc ñu ngi si dëkk yëpp ñu ngi si kii mais pour parler du de la poule moom euh, Moussa nee léegi poule de la mort la pour mais poule de la mort pour Qatar. pour Qatar tout simplement <laughs> parce que foofu Qatar moo tëggee. non xam Équateur toog na. d'accord naa ñoom ñett ñu ne pour de la mort rek ñoom ñoom. d'accord naa moom la la wax. d'accord naa te Hollande boo xam ne lu ko Sénégal def. waa bu du woon ñaari faute yooyu mel ni def. Ah. waaw donte Sénégal gardien de classe mondial pour gën a ko ah, bi leen lay wax quoi. mais bon Qatar daal ils sont venus pour découvrir. Mm-hmm. tout simplement ils sont venus pour apprendre. ils ont appris peut-être à leur dépens pour le mais ils sont venus pour apprendre peut-être li si des li si raw li si kanam raw li bët. Mm-hmm. xëy na ñoom au fur à mesure parce que bëgg nañ ko. Mm-hmm. dinañ gën a évoluer si football ak yooyu parce que il faut benn pays bu ndaw la boo xamante ne nii ñun tey jii rang bi ñuy tenir au niveau mondial peut-être que waruñu ko woon tenir mais à force de travail ak bëgg li ñuy def moo tax ñu toll fi ñu toll. vraiment c'est ça waaw loolu moom yeneen équipe yi moom équipe yi nga xamante ne euh, muy Brésil France ils ont tenu le rang Argentine ça a été difficile mais ils sont qualifiés man daal li ma bëggoon rek mooy sama équipe coup de cœur muy Arabie Saoudite bëggoon naa trop ñu qualifié <laughs> mais bon. ils sont pas ils sont pas parvenus à se qualifier donc. di magnifier le travail d'Hervé Renard parce que def na fa lu am solo Arabie Saoudite proposé na football bu set bu rafet pour dire pour wane mu wan wax Moussa rek que ni football mën na set rafet ba pare ànd ak ay résultats mais bon mu jëm ñu qualifié malheureusement ah donc y a pas résultat bi maanaam bi mooy le premier match contre Argentine tey jii nii loolu ça restera gravé dans leur cœur d'ici dix mille siècles Arabie Saoudite on parlera de. mais ils sont sortis au premier yow gis nga ay gis nga ay images yoo xamante ne nii dañu kontaan bay wekki ay ay seen seen i buntu buntu buntu la noonu wekki ça ni lii. am gis naa démb gis naa démb maa ngi gis démb Australie ñu doon ñoom dañoo génn ay seen de liesse ñoo doon def parce que la première fois je pense que ñu qualifié pour premier tour. Tunisie 1 la mais ils sont ils sont éliminés. mais Tunisie yi fàttali nañ seen élimination. par rapport ak bi ñu la pour te dire comme ça de. comme nous. Eh, eh. ça c'est toujours dans la progression. et dans la construction mais c'est la même chose comme ni palmarès bi aussi. Eh, euh, c'est la même chose ah, que ñun ñu ngi ne France lu ñu dóor France 31 mai. bu saabu 31 mai ñëwee dañuy dañ koy mais loolu gis par la suite aussi a été glorieux. pour bañ a sori parce que temps bi daf ñu dab. dab nañu ah, la suite aussi a été fantastique. temps bi dab na ci débat bi moom li yoon na mais bon. xam nga bu ñu dóoroon France pare toog du am sens. di résumé mais la suite a été vraiment magnifique. di résumé di leen wax rek ngeen. li ma waxoon la confirmé waaye. leen ñu rek ñu moom solo. loolu na solo te équipe yëpp a ngi ciy gis seen bopp surtout ñu ci wax waaw ah. <laughs> léegi yow Moussa lay tëjee. waaw baax na ngi ñaan yàlla incha allah Angleterre ñu marché ci kawam. waaw yaa ma gën a xam. jaar ak moom fi ñu jaar yi <laughs> incha allah. mbokk internet yi gis ngeen gis ngeen débat bi gars yi moom xam ngeen ne bu ñuy wax sport moom sénégalais <laughs> ñëpp ñooy kii. <laughs> léegi comme ni ñu ko waxee rek di ñaan yàlla dimanche yàlla ñu yàlla may ndam lu seddu guy. ñu féete ko comme ni ñu ko féetee suñu qualification bi di dox di daje suñu internet yi ba beneen yoon incha allah.